moo tax mu ne inal insaana naka xeetu doomu aadama xuliqa bindeef na leen aloo an mbir mu ñuy nekk di saaliga kon ida massahoo ndeem jot na ko asaru ñàkk asaru feebar jaswa an muy jàqaa kon wa ida massahu bu ko jotee alxayru wér alxayru xalal man noo an muy tereexa kon ilal musallina lu dul way gëm ñi ñoo ñaay ñan mu ne alasi mooy ña nga xam ne daa imuna way dappetu lañ ala salaatim seen julliya ñoom rek la mu ne wala si naag ña nga xam ne ñoom de fii amwaalim ak yi nekk la seen xalal ya xaqun xaq maalumun ba de buñ xam li saa ili ñeel képp kuy laaj si wala mahroome kiñ xeñ ba mënta laaj loolu rek la mu ne wala si naag ña nga xam ne yu saddiquna danañu dëggal bi yawmi diini ci bi sa fay ba wala si naag ña nga xam ne fu mu ñoom musfiquna way jàq lañ min azaabi rabbim seen bugalam borom inna azaaba rabbim naka mbugalam seen borom xayra mamunin xayru mamum duhul luñ hóolu ca ñoom wala si naag ña nga xam ne hum ñoom xaafisuuna way watt lañ li furoo jëm seen pëy ya illaa ala aswaaji loolu seen soxna aw maa malaka wa loo xam ne moom na ko ay maanum seen nday joor fa innahum naka ñoom xayru malumin duhu ñu ñu yedd ca dikkee ñooña waaye fa ma ni bu taxaa képp koo xam ne sàkku na waraa zalika li nekk ca gannaaw soxna zalika ñooña maanaam waraa zalika gannaaw loola fu laa ko yooye gaay hum ñoom alaaduna ñooma di way jalgati li leen xaraam li leen bàyyi fi li leen dagan wala si na ña nga xam ne hum ñoom raauna way sàmm lañ li amaanaatihim seen kóllitey cër yi wa ahdihim ak seen kóllitey xol yi wala si naag ña nga xam ne qaaimuuna way joxe lañ bi shahadatihim seen i seede wala si naag ña nga xam ne yu xaafisun dañuy dappetoo wattu ala salaatihim seen julliya ulaayka yooye gaay na ñu ñu teral lañ fii jinaat ñu nekk ci ay aljana yu neex a neex yàlla nañu yàlla boole ci xaaj bi yàlla nee na nit maako ko bind ci ñàkk jom su wéree boole koog am di balballu su ñàkkee mbaamu feebar balam booba di bonde mu ji peer mu tëdd ne nem dootoo yëgati dara ku ci ñàkk mbaa mu feebar boo ko gisee yërëm ko waaye nag ku ci yor yenn yi nag commencé ngay tiitaru mu ne su amee alal mbaa wér commencé na nay du ca du ko def ci farata ci li ma bëggul rek la koy def maa la dooleel ba pare ngay dooleewoo sama doole di ma moy mu ne nag su ma ko tegee ak ñàkk mbaa feebar ma ngay ma ngay jàq tiit mu ne xaal bii ña ca génn rek mooy ña gëm yàlla ña gëm yàlla bu ñu amee wërsëg sant yàlla def ko ci la yàlla bëgg suñu ñàkkee ñi muñ delloo seen bopp ci yàlla kooku mooy melaw julit moo tax yonent an tabas yàgg mu ne xajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu xayrun billaahi yéem naa mbiram julit mbiram julit moo yéem ñu ne ko lu tax mooy mu ne koo xam ne bu ko yàlla xéewalee mu sant bu ñàkkee muñ waaye nag ko dul ko gëmul yàlla mbaa sa gëm yàlla ga feesul sa xol soo ñàkkee ku ne da nga ko ko jiiñ man ngaa tàngooree ca biti sax amoo dépense ñëw jaay ko sa soxna saaga ko mbaa nga dóor ko mbaa nga wan ko njaboot gi loolu lépp yaa ngi toje ay kaas mer toj télévision bi te da nga ko jëndaat kaas bi toj kaas yi nga doon toj léegi te ngi defal la ci ndogo nga commencé naan kafe loo ciy toj kon yooyu yëpp manqué rek moo koy waral kon loolu lépp manqué waaye nag gëm yàlla dafa jafe gëm yàlla piir nga fexe ba rempli juróom juróom benn yi fonk julli doo faat waxtu doo ca yem sax da ngay naafile julli gu jot nga gàttandu ko gunge ko tertoo ko ñeenti rakka buy dem nga gunge ko ca baar ya ca tàkkusaan ya timis moom da koy gunge juróom benn rakka rek waaye bu ko gàttandu loolu la Maalik gëm gexe bu ñëwee nga gàttandu ko buy ñibbi nga gunge ko gana guddi la gan a guddi da nga ko war a gunge ba sori moo waral naafile guddi yi waaye gan gi ñëw rek nga teral ko rek dem tëri nelaw sa gan gi mbaa dana mën a génn fi mu dëkkoon da ko war a gunge ba mu sori loolu moo indi yaa yaa ayyuhal muzammilu qumi layla illa qalilan su ko defee tamit nag fajar ñëw gan ak suba teel la nga gunge ko daral ko ci ñaari rakkaa su ko defee tamit julli julli ko moom joxe ko teral ko soo demee ba nga xam ne nag jant bi yëkkatiku na nag nga julli juróom-ñetti rakkaa fay nange ba juróom-benn buy fukk ñaar gën a baax di juróom-benn sëlmal yi wuree ci nekk. lii lépp lañ bëgg kooka mooy walladina ala salaatihim daa imuun foo toll tamit boo bàyyee koo ca jàkka ja sa xelang ca jàkka ja am na koo xam ne julleem du sëlmal moom bu bàyyee ko ca jàkka ja xelam ma ngay dajaat tusubaar tàkkusaan xelam ma ngay dajaat heure bu nekk ma ngay bàggante ku mel noonu la yonent bi ne bu ngeen gisee nit xelam ma xaju ci jàkka mu baaxoo dem jàkka seedal leen ko gëm yàlla ida raaytum rajulan yaqtaadul masjid fashhadu lahu bil iman kon ku mel noonu moo jara seede mu ne waaye tamit ànd ak loolu seen alal ya dañ koy bokk ak ñu ñàkk ñi ña a laaj ak ña laaj ñëpp bu ñu amee jox leen am na koo xam ne bu doon lekk suuf du la laaj dara yaay xam ne xëyoon na ko rek nga jox ko dëggal nañ bis penc duñ ko weddi waaye tamit ñoo ñoo xam ne mbugalam yàlla ma lu ñuy baax baax di def li yàlla santaane lépp ñi ngiy jàqane mënuñ caa mucc buy kenn dem safara day nekk ñoom ndax ab julli dafay war a dund ci diggante baynal xaw fi war a jaa yaakaar yaakaar ba buy kenn dem aljaana nga ne man lay doon ragal a ragal ba buy kenn dem safara man lay doon soo demee ba toll ki sukuraat nag sànnil ragal fële dese yaakaar ne tey lu may bon bon tay ma gën a ji koo xamee ni ku baax ku tedd ku tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim su ko defee kon nag bay bu ragal waaye ñu gëm yàlla ngi dañuy wattu seen pëye du ñu njaaloo seen na rek la ñuy ànd mu ne nag képp ku sàkku maanaam fa ma ni bu taxaa wara zalika fa ulaayikumul haaduun wara zalika nag lu bëri la wara zalika nekkaale ci la bokk ku jël sab nekkaale sàkk sàkku nga maanaam li la li la li la xaraam bàyyi fi li la dagan koo xamee da ngay toog ñàkk jom naan juróomi at a ngi nii maa ngi moo génn foo ko teg génn génn mooy waxi lan léegi-léeg nga ne dama ko yaakaaroon génn naa moom juróom benn at korite gu ne ma xotti moom dafa maa wor keneen keneen moo ko takk ma ne ko ku pareegut kenn mënu koo xaar yooyu yëpp ñàkk jom rek te tamit génn nag nit ki bu ngeen xasee am rapport nga takk ko ca su ngeen sëyee mooy yàlla la sëy nekku fa boo amee moom rapport dañ ko war a laablu ndax jëleewul ca dara te loolu dafa bëri ci ji jamono waaye tamit wara azalika liwaat ca la bokk ñaari góor ñuy say di fa ji jikko ji gën a bon wara azalika sixaaq ñaari jigéen ñuy ànd ca la bokk wara azalika nga nekk góor di fooye sa bopp ba sa mën yu génn ca la bokk nga nekk jigéen di fooye sa bopp ba sa mën yu génn yëpp fa ma di bu taxaa wara azalika ca la bokk kon wara azalika lu sakkan la ji góor daal dañ ko dénk ndox mu foor moo xam ne duñ ko jaay duñ ko leble duñ ko maye yàlla ne nag bu ko yàq bu ko sotti fu ma la ko sotti loo wut mooy sa soxna rek waaye bis boo defee lu dul loola yaa ngay yàq ndoxam yàlla mi ni koy mala yi yàqee ku leen neex fu leen neex kon loolu baaxul ndax njaalukat boo gis ji koy mala la yore moo tax lislaam nañ ko def jëfi mala mala bu defee lu garaawut dañ koy dóor moo tax moo indi téeméeri yar su defee lu garaaw ba mu garaaw a garaaw nañ ko rey mu indi maanaam euh, jam la ay xeer ba nga dee rek mu jeex ku jëf-jëfi mala ñu jëfee la jëfi mala njaalokat yëpp jikkooy mala lañ waree moo tax yàlla ne nañ leen xatte ci ñoom jëfi mala rek dóor téeméeri yar bu garaawee ba garaaw rek ñu sànni leen i xeer bañ dee mu jeex léegi nag aaya ji fa ma lazina kafaroo qibalaka yonentu bee toog rek xéeféri def ay kuréeli kuréeli kuréel wër ko di ko buqi seen bët yi rek fekk nag ñoom dañoo xam luñ xemeem dañoo bëggoon daal kenn ku nekk ki ñoom dugg aljana ne aljana daal ni ñu yàlla tere leen nii waaye bu àllaaxira nii rek lay demee ku ñu dëkk aljana da nga ñoo faa gën su ko defee nag ñi commencé jël seen yooye di xool yonent bi moom lay alquran di wax si nii moo tax mu ne fama lillazina ana lan mooy mbiri gaa ya nga xam ne kafaroo weddi nañ na mbir mu ñuy way buqi seen bët ya izina mbir mu ñuy def ay kuréel ani yemini ci wàllu ndeyjoor wa ani simaale ak càmmooy